leen xam naa ne da ngaa yàq mais leen rek laa lay ñaan nga taxaw nga déglu defuma deux minutes yow est-ce que mën nga ma jox numéro Zeyna bi ma ko mën a déggee fi mu dem s'il te plaît soxla naa ko ma jox la numéro Zeyna yow loolu rek laa bëgg yoruma ko Claire clair man ak yow ay xarit la lañu naa sa doomu ndey la mais dama lay ñaan bul ma bul ma renier quoi bul ma bul ma def lii quoi jox ma numéro bi ma woo ko yow lu ma la def xeeb naa ko instant bi lu ma bëgg a wax sax man yaa am nga makaama yow ma jox la numéro mais Claire taxal ma explique Claire yow jigéen nga dama def sama déclaration d'amour à Zeyna devant tout le monde man ak sama jabar Nana danoo séparé wu woon waxuma ko may la sa bat mom tamit ñaanuma bat ma dem suñu kër tok fa bi may gisanteeg Zeyna di bëgganteeg mom ci la ma wo ni ma dafa ëmb ta yow xam nga li ci ëmb so mus ta ëmb tamit mus nga gis ko ëmb dafay bëgg ku nekk à ses côtés te sama doom la ëmb sama deret la ëmb waaye xam nga ni su dee bëgg rek naa bëgg naa ko ba mu jeex tàq waxtaan nan si man ak yow duma ko def mukk lu koy naqari muy jóge ci man. papa yaay. waaw. Euh, jotaay bi maa ko sàkkuwoon. Mm-hmm. xam naa ne dina leen jaaxal ndaxte lu musul am la waaye jàmm moo tax ma woo leen. koku mala la doon wax ni maa ngi moom ñuy genn muy clair. hmm jotuma sey wax ak yow mais. waxtaan naa cee moom voilà kon alhamdullilah waxtaan nañ ci sori nañu man ak mom mhm. ba yobbu na ma seen kër présenté na ma papaam. Mhm. ma fekk fa pa bu bu baax. hmm wax deug fa yalla mu tok toog ak man ay cadeau hmm kilifa la fa fekk. ndaxte mhm. bi ñu waxtaanee ma xamal ni ko dama bëgg doomam mu ne man ku bëgg sama doom dama lay bëgg ndaxte man ak Claire ñoy am ku ci ne sa papa ak sa yaay yow rek lañu gis ay sanni tàccu lañ mu xamal ne ma si xolam la nekk ma ne ko man mii tamit sama xol la nekk dama ko bëgg mu ne ma boo sama doom dama lay bëgg ci kaw loolu mu ne ma yónneel say waajur ma may la soxna laaj nag ndaw si ndax bëgg nga mu ne waaw mu ne ma bëgg nga ma ne ko mu ne ma kon yéen a si ci loolu noonu maa ngi la doon wax fan ne la damay dajale xaalis. Uh-huh. Uh-huh. li ma doon dajale nag mu ngi nii bariwul. Uh-huh. trois cent mille francs la am na leneen loo xamante ni nii maa ngi koy xaar. ak lu ma denc parce que Souadou Gaye ak Ibrahima Seydi war nañ ma yónnee xaalis. ak li ma denc ma jël ko mottalee ko trois cent mille yi lii avance lay doon. lee bu ñëwee ñu mottalee ko. papa nga dem ñaanal li ma soxna. wax dëgg fa yàlla xaalis bi nag mu ngi nii. yaay dama koy teg sa loxo. nga jox ko sama am yàlla na barke. ma de li ma lay ñaax rek njàmme mooy. Mhm. nga góorgóorlu gënal a fas jom ndax boo xasee ba am jabar jabar du ay fo jabar nekkul comme gel yi ngay doxaanante tey ngeen xuloo suba ngeen juboo amul mhm. amal jom toppatoo sa jabar xam sa jabar mooy kan mhm. bu mu xiif bu mu mar lo am nak bokk ko ya yaakaar na ni bo jubale mom mu jubal sen and day neex te bu boba dag may noppal mom tamit mu noppal ma mm-hmm. gorlu lo geuna gor gorlu ci gor gorlu ko ndax fim nek ni jabar na ay loxo kesse yor ko de mm-hmm. ngay ñafé mm-hmm. loolu da la am lu lay wax te mu ma topal nak xarito yi bari <coughs> te da musuma la gis sa ngay dugganteeg ay xarito yi bari ah. kay ndax tay ji mën nañ ne sa jabar li sa jabar la sa jabar yam mom tam bu ñëwee ci kër gi na doon ndayam na doon bayam lu mu bëgg suba ba ngon jot ñu taxaw ci mu bu rafet ndax amna ño xam tet bu ñu yor jabar amna ño xam bu ñu sañoon ko yor kon nak amal sa jom ak sa fulla ak sa fayda ba li ñi ñi di wax buñ la ci gis motax malay ñaan encore une fois nga dawal sa instinct jigen nga jox ma numéro Zeyna ma def wax ak mom ba nga xamé ni bayanté wo ak sa jabar bo xawma sa jabar xawma sa ex jabar kon la ngay nekké fi di génnee ak Zeyna mais xam nga rek dama amone dama dama ko gis rek am tiofel ci mom lool rek la mais dimbali ma rek xolal ko do ko fen non musuma ko fen je ne pas <laughs> menti kon lan motax waxoko te ko te ba mais parce que dama séparé won ak mom mm, loo leen séparé séparé séparé waroon nëbb waroon nëbb sa gel non non non man ak Zeyna fi ma teg man fi man la tegoon waxoon naa la bis boo ko defee lu la metti lu ko metti man ak yow mais bul wax loolu waa wuy ma clair man maa tooñ maa ngi jéggalu baal ma àq boole li la neex ak li la naqari nga dimbali ma jox ma numéro Zeyna kon danga nga koy jot kon da nga naan allo bébé bëgguma loolu yow donc tu aimes me voir souffrir quoi man yéenewuma la loolu yow man sama petite sœur laa la def sama xarit nga bul ma def lii man xaw ma Zeyna fu mu mënta nekk mais xam naa ne elle souffre xam naa ni mi may xalaat ni may xalaatee noonu laa koy xalaatee <laughs> dama laa ñaan ci colère bi nu yàlla sànq bu nu yàlla boole dimbali ma nga jox ma numéro wala nga wax ma fu mu nekk ci Sénégal ci àdduna bi man pare naa pour dem gis ko. xaw ko. xaw ma mu nekk te puis sax yow gis nga man ak yow buñ doxatee ba suñ ñeenti bët yi daje dama lay kii xam nga Zeyna euh, mu ngi si jàmm instant bii nii de waaye yow xamal ni yow digg Cees doo am jàmm te bu ma rombati ba may woo. yaakaar naa ni nag topp bi doy na quoi su neexul fii rek neex fa leen ku ñu séntu ci gaal fexeel ba buñ la fa fekk na nga am jom gën a la yokk jom sax am nga jom ndax man man nga nduru man sa yaay nga nduru jom gi moom ci man nga ko jële waaw ak man mii man bi ma ne takk ñu bëri taxawoon nañu bañ dama laa fuqar ñi yow mii yow bi may takk nga ni man yow ñu bari ma bëggoon xam naa loolu man dañ maa bëggoon nga doon daw sama ginnaaw. daw jiitu nga sama junne bàyyi ngeen. waaw doon daw sama ginnaaw. kan kan yow. yaa ngaa jooju ñëw suñu kër. yow man sama yaay ni carrément du ma la may. waaw baax na ndax da ngaa bari histoire. waaw baax na baax na baax na baax na. góorgóorlu daal. léegi da may may ma wax da may may ma wax. kii bi may bëgg mbappat la woon ndeysaan booba njàmbe njàmbe booba bari naa doole. waaw yow njàmbe yow foo ne mi ngi nii laaj ko. boba taa xam lu am da ngay ñëw rek ñu jox la sœur nga may lalli di xatar di tegal si di mbot di yor yorum yalla di téq ci lawle bu mo daane rek ndaysan gersiyam ci mo mu siñ yuuxu <laughs> xaritam yuuxule ko motivé la ndaysan motivé la <laughs> mais gis nga njàmba yow da nga nan alhamdullilah parce que da nga fekk sa bay xam aduna sa yaay bëgg sa bay kon yow bo amé jabar bu fi dalay bëgg ci ni mba ci na leer na wala leerul ki nak jambar la et puis gor la geureum nako, sant nako mm-hmm. te ke di ñewit bu ñewé na xamni ki moy ndayam man may bayam, yow ay jëkërëm me ñooy sey kilifa mm-hmm. leg nak man lima wara def yépp dina ko def xaalis bi dina ko yob dina waxtaan ak ñoom dina leen wax li fi ne yow bu yabo bu ñewé nga dollee gor ta xamni jabar du gel gel des fois mu ñaan la nga gant ko mais jabar boko jele dang ko yor de nga lima la wax ah li nga jublu nak budé man may bay té dañ né barké bay yalla nako yalla barkel yalla ci yalla def sutura ci kaw ci kaw lolu mhm. euh sama yaay la ñëk yaay boy yalla bu défé li gën ba ñu may ma clair mhm. bëgg na len mhm. togg yak du jëm ci walum wañ alhamdulillahi wa rasuli bàyyi ko nga toog alhamdulilah yaa ngi jëm mag yéen waratul alhamdulilah papa yow dama lay wax benn waaw bu sedd da ngay noppi ne xam nga da ngaa sori ci man bàyyil mu may wax ngay jooy ni ngay def ba ma fi papa wuy ma mhm. yow lenn laa la sas ngir yàlla ya jëlal sujaada mhm. kurus satala di jàpp di julli dana ñaanal maa ngi julli kat yow kay nel lay ñaanal waaw yow gën a la yokk julli te benn affaire dafa am kër gi lu la fi waroon. Mm-hmm. incha allahu rabbi dina la wàcc. lan laa la waxoon lan laa la waxoon fii bi ñuy waxtaan. bi ma doon def benn. dina ah, waaw dinaa ko yokk def benn non dama ne la Pape bu ma doon def benn même bu ma daawul def. waa jàmbaar la daaw ma def léegi dinaa def. waaw loolu. jàmbaar la waaw jàmbaar la ah. dinaa def incha allah yow ah. lépp na la wàcc. Mm-hmm. beneen affaire dafa am nag. Mm-hmm. bi ngir yàlla bu si góor juddoo. may ma ko sama tur man bu ma kenn wax ki koy tuddee alaaji laa koy tuddee moom la ma ñëpp xamee bu dee jigéen sama yaay laa koy tuddee donte ñëwagul sax mais damay anticiper man xam naa leen xam naa jikkoy sénégalais doom bu góor alaaji doom bu jigéen sama yaay may ma ay njëkk tur may ma kenn sama yaay laay tuddee jigéen bu góor ki alaaji laa koy tuddee waaw eh, jeex na jigéen ki sa yaay quoi. waaw mais bu ma amaatee ma tuddee la papa. waaw alaaji quoi. waaw mais remplaçant la. waaw bu ma papa ñaanal yàlla man man ma bañ mel ni yow. ngoone xamal man dinaa yóbbu xaalis bi dinaa def li ma war a def. mais alaaji moomu man li ma ci dégg moo xaw a kii quoi. mais non papa da ngaa mer. non meruma man kay damaa xam ne am taabu ma ah, amul ah. taabu góor dina am bu jigéen bi déggu sama yaay. amul problème bu dee ay seex ñaari de. mani sa dëkkandoo mooy njëkk yàlla jamonooy ak kii jamono dafa wute jamonoy tey ji dafa tëra di asu man daal ay ree ma def jamono ji asu yaa njàmbe ci kër gi moom meex na di ah yaa njàmbe de buñ la ko waxee buñ la ko waxul yéna ngir ngi rii lu neex ci perron bi ma ngi leen di gis di waaw yaa xanaa ñam du sama mag di sama cousin rek ah ok léegi amul droit toog moom waxtaan ak moom bu baax kay luy problème li ma gis de nobel la mo ma yag nak ku yag ci ndaw di ndaw njaw hmm ya xool nga ñàmme gis na ko luma ma koy doyee ah, lu nekk si ñàmme léegi ay xeetu habillement am ñàmme mel ni lu ma mën tabañ ci kër gi Ah, xeetu solom nag lu ne la nga naan ma ay nopp de loolu dangaa ñëw fekk ko mu koy sol dangaa xàmmee ko gis ko ak façon col googu loolu nga ko gis muy direeku ne serpent waaye nag kaay ma xamal la léelu trois roues yi nga gis nii dëkk bi fi mu toll ñoo ko téye amee xaalis kese la seen déedéelu gee karavatam bii mel ni ab goj leen nag laa lay xamal sa baay bu nga ko gëjee gis ci kër gi yàgg na de bàyyi nga ne ñoom ñaam ñoo ñu yor léegi yëgoo loo njàmbe mii baayam dee ñu yor bul bi dafa wëlbati ko fi mu toll lépp a ngi ci seen kaw waaye xam nga man damaa ñemeb sax damaay fere fa ñu fere ma fenn lu ma neex laa leen dox waaye xam naa ne ñoo yor kër gi di njàmbe bu loo nabee te nga koo noonu njàmbe Manila. jamono yama naa na bal ma ñàmbe mi bu ko xool bokkul ak léegi. ah hmm ñu ngi ko nar a jàppoo ba kay. bébé dama kontaan. Hmm. yow sa temps ñu ne bi say bu nekk ma yaakaar ne ëmbal naa la te ëmbaluma la su ma demee ba nga jox ma information de très grande taille bi damay kontaan <laughs> mais nag ma. Hmm dama bëggoon bu day góor la. nga may ma tur bi. déedéet bébé kii dimbali ma rek. su juddo muy góor sama ben xarit hmm. eh, hmm. sama ben wolere la ko bëgg tuddé jam jaam say la tuddo mi ngi ki loolu mom man mala ko ñaan te len la lay yegal bébé. ngay sol tu jëm dem rek ci Fatima Jigal mu changé ak robe ak yooyu ak sa xarit boobu moom moo waxoon. nga ni léegi ëmb dafa évoluer Sénégal ak réew mi yëpp laay wax sax. moom bi léegi mën ngaa sol lu la neex. su jugee du bakkan bi du noor ak biir bi ak yooyu ma ma yor na de demal nga toog incar na ko ngeen doxaanante sama yaay moom lu ko dal ada ah dara wax li ma gis yaay toog fi tey nag ma lu ma gis ci moom bay génn ak moom bàyyi lu ma gis ci lu ma gis ci moom nee naa la la ma la doon wax dem doxaan ko ñëw indil tegal la yaay kafe wu ma yooyu de yaakaar damay ko kon baax na lii ma la wax de comme que dangaa rëy mënoo koo def man nga xam hari paaka ñaari bor la dama man ci bé bor man ci mana bor man na leena a lu melni prix ak ba man leena soti lem tok di mar man dina lijeenti li njàmbe dina dug sama neeg bis mala ko waxe gam ko sa ku ci nag bu ma tontu amoo leen looy wax nekkuma fi sax di waxe affaire bu sey yeeg yooyu man xala la bëggante wuma de lo xala la bëggante wuma te ñàmme mom te sax yaay man damay jang du fi nga tok ni ma ba pare tay nga ñew di ma wax te nga maa bañ a indi Sénégal bu la benn dëkk ñaari gaar doyul benn aéroport bii jigéen ñu lool te nga maa bañ a indi Sénégal déggoo li ma la wax sànq mën naa ci boor boor mën naa ci bee boor man mën naa dugg ci mbaan du dugg tiir génn wéex fur woote laa pee jàmm te loolu laa bëgg a def bàyyi ma bandi laa woyu xam naa li may def asu bu ma waxaan nga ci teg ci batu ma àbb sa am léegi lu leer laa la wax déglu ma bu baax mu nga bàyyi koog man jeex na nee ma waaw koy yow nañ maa ngi iyoo nañ toog iyoo lu ma wax rek ne waaw. di gorante ñoo xam ne comme maa moom comme Tom ma jéeri ci kër gi di ko yaayam maa moom nañ mel ci kër gi tey nga may duggal ci ay doomam bëggaloo ma jàmm sax. Ah, as na bëggoo jaay jàmm de as ku ne ñam nga ko waaye dangaa bëgg a ñam sa ndey. as mën leen ni tom e jéeri ci kër gi di tot tot fu waaye toolu seen leen nag seeni laa mañ ak seeni dàqante waaye li ma bëgg a lijjanti naa ko lijjanti xanaa jeex na dinaa ko lijjanti yaayam laay xëcc ba mu ñëw ma teg jënd galaas sotti ci potu soow woote jaam laa pay damay wuy si force yaayam xam nga lu neex rek la bëgg moo tax moom mel ni ruy bu dog ne fi mu bëggul dara ci boppam tàyyal na xamul lu muy def yow koy wàccee rek man dinaa wàcc te li nga mënul yëpp dinaa ko def waaye léegi boo ko waxee mu bañ nag. asu du bañ maay wax ak moom jeex na yow kenn du wuti di ca xalaat ñàkk. salaamaaleykum. maaf na def. ça va na nga yow la kan. man naa yegsi. yegsil. ma do ma baal tegal ma saag bi non la xam ne. yalla ba di len ñaanal rek yalla len yalla defal jàmm yalla may len wër ndax wax deug yalla amu len ben problème te ma faal xam na ni nit ku baax la wax deug yalla xol bi dara neeku ci motax dal daal dal bu reyul sembal yi ko fi doon yépp ay liggey yu bon yu daje woon ci mom la rek mais nit ku baax la yow yàqoo ci dara bir bi day metti xalif la moo fi indi s'il te plaît looloy lu ëpp important ñaan gi amna solo di la ñaanal yalla di xalif lan mo la fi indi s'il te plaît ma soxla soxla bu jàng dama soxla waaw ah, dama amul tak nga déglu ma rek yow itam bu ma bàyyi yitte bàyyi kër yëpp ñëw ci yow dina dama laa soxla déglu ma rek. boo ma jot dama loo ma am jot nga ñëw fi ma nekk en intimité avec ma euh, kii off intimité bi tuuti rek nga jub si si cas d'urgence bi ndax boo gisee ni waxee sax nga xam ne amatuma force wax ndax xiif ak may bëgg a rey. dama xaar ma fay. kii bi ci kulaar. dama nga xaar ma ci kulaar bi maa ngi mu ne fi ma toog nii yàqal ma leen dara. kilif hmm? dama nga xaar ma ci ëtt bi dama waxtaan ak sama jabar yàlla baax na. kilif. Hmm? kilif. Hmm? sëy yóbbaale ko. waaw ah, moom dara nekku ci sax. yi salopette bi la ak kii mooy yére bi ma bi ma

Bakal. non kii bàyyi ko foofu. Hmm. def eh bàyyil sama tur bi s'il te plaît. bu def lii dama nga waxtaan ak eh, ok li mu def yëpp ya, xam nga ko. xam naa ko. ñëw bi mu ñëw ci kër gi nii sax metti na ma. mbaam bu la wekkee nga wekk ko yaa mbaam bee man kaana lillahi kaana laahu lahu loo fi jël moom ngay jël nañu maytu gaaral raxas leen xol yi yàlla bur bi ne lawul loo fi jëf moom ngay jël yàlla xol lay fay xol lay fay yàlla xol lay fay xol lay fay